mbokki waa Sénégal asalaamaaleykum mbokki waa àdduna tey nag ñu ngi nii en direct Bëgg Ndongo TV waaw ndeysaan di bëggee gars yi bu baax a baax te nag ma seetoon sama sama benn doomu nay nag muy Adama Fall ñu gën nga xam ci Jelsi naan le champion des champions ndeysaan di bëggee ñëpp dégg nga nekk ndeysaan comme ni ko Ndongo Lo waxee noonu rek jàmm rek jàmm rek jàmm moom jàmm moo fi jëkk jàmm moo fi mujj quoi pour na suñu gaay baax wax international bi ñëw na fa dañu ci ful fayda ndayam le grand champion jël de de ci bu baax baax di nuyu Eumeu Sène bu baax a baax baax sama papa sama baax waaw mais je pense que tey tey dem nga fa daje ba ñëw. waaw. wax dëgg naa ba ñëw. parce que citoyen la dama war a wote. waaw li may woteel na woteel naa ko pare quoi. dëgg la dëgg la. wax xam naa dans quelques instants rek ngoon rek ce soir incha allah résultat yi dina rot waaw parce que tamit chaque citoyen doit de aller de voter loolu dafa am mais toog si ruq yi ak koñ yi di coow rek waxuñu loolu li ñu wax mooy dem voter ji waaw choisir ki nga tànn incha allah tamit di ñaan yàlla que le di ñaan tamit yàlla suñu borom tamit def jàmm bu baax a baax a baax a baax ak jàmm waat